donc préparation bi mun naa ne yombul yomb na alors li tax yombul c'est que dajale ay nit momo yombul woote itam mo yombul mais lico ko yombal aussi Moi, que capital humain moom la ñu donc dañu boole suñu doole boole suñu pas-pas ak suñu xam-xam ak suñu coono ba mën a taxawal lii ba yàlla dañu ci jàppale. alors nombre d'inscrits dañoo yokkaat bu baax a baax mun on a presque plus de quarante exposants année bii comparé à daaw et puis y ben une liste de réserve où il y avait au moins 50 éleveurs qui xam venir. malheureusement l'espace bi permet de mën a nombre de boxeurs. donc on est sur 220 boxeurs cette année. bon le budget bi là parce que déjà rien que les récompenses il nañu ko parce que l'enveloppe que nous avons il y a cette année donc euh, box yi aussi ils ñëpp ñoo tolloo taay wax fa dëgg neex et puis côté investissement aussi yokk nañ des affaires qui qui ne nekkutoon

mais enveloppe bañ joxe daw danaka daanaka nañ ko pour catégorie bu ci nek bon da fay nek surprise nak parce que amna na affaire yo xamné prévoir nañu ko donc euh, di ñaan rek ñu xaar ba fi ak final bi donc le samedi et le dimanche inshallah rabbi ñu mun leen primer ñoom tam ñu contane alors la troisième édition se prépare maintenant fa dëgg neex yàlla ñu ci yeneen donc fi jeexagul dëgg la mais éleveurs nous ñu ngi xaar donc am na nous xam ne exposé objectif année prochaine c'est que ñi bëggoon exposé exposer, nous exposé incha allahu rabbi waaw. alors docteur Nyan, c'est un service qui est rendu à l'élevage, Bien bi nga membre ne la depuis des années donc et puis non seulement mu suis docteur vétérinaire mais mu suis une présidente d'une association aussi CEP qui est notre partenaire alors Grand Serigne c'est le parrain coutumier donc je c'est un partenaire de la FODAC donc moi, je tax ñu parrainage bi. donc di sant ñëpp di leen sant Vision TV qui est taxawaay di wax nit ñi nañu en masse et que FODAC état d'esprit la mindset là, et puis euh, façon de faire la fa